ne mbër yi ku leen feesal ku mag doon sa doom nga tey dama yàgg fu ma président yónnee rek su ma delloo si moom dama yàgg di ko wax kat mooy sëñ xaadim yàgg di ko wax mbooloo man fay fekk nan la dëggoo nan la noo jeexe si sëñ xaadim yàgg ko wax aussi mission bi nga xam ni moom gëm naa ni rasulullahi gëm na sallallahu alayhi wa sallam gëm naa ni Serigne Touba maamam moo ko jox mooy jubbante jàngale ak nite fexe ba nite ñi mu àndal ma koy nettali président ba président ni ma loolu doyuma dama bëgg nga indil ma ko ñaan ka rek ni ko mu ñëw nuyu ma ma woo sëriñ bi wax ko ko wax ma ni ma sama xarit nga te moom de jàppe naa ko gannaaw bu mu jiitee réew mi jàppe naa ko sëriñ tubaa kon danaa sawar si dem fa mais ba nu demee ba nu dajee ba sëñ Xaadim wax ku wax feeñ ba mu waxee rek dafa ko gis xam ni kii la ma doon wax si moom yépp lu ma wax rek bàyyi naa si lu ëpp loolu téeméeri yoon moo taxit foofu ba tey moom lay waxtaane ay jukkoom yu rafet waxinoom wu rafet ak dëggoom ba moom jàpp na ni du yem rekk si sëriñ xaadim nuy si ko moomal boppam mooy doxal tànkam ba ñëw nuy si fii Baxdaad sëñ xaadim daf ko bëgg njukkal si cëru président de la république am si la koy jëkk njukkal njukkal ko si li nga xam ni moom daf ko ñor mu koy def mooy jàngal xale yi def si ñoom xam-xam boo xam ni du leen réer xam-xam boo xam ni dana leen amal njariñ ba xam-xam boo xam ni dana leen jëmale fu baax te boobu amul xam-xam bu wóor bu dul xam-xamu diine boo xam ni dafa sukk si ay jàngale sëriñ Touba man gëm naa ni jamono jii su fekkee ni ñëpp ñu ngi def lii moo def di jàngale di xame di xamle jàngale li sëriñ Touba tegtal jàngale téere Serigne Touba yi kon àddina bi ñëpp daanu jëm kanam kenn du réer. kon loolu président am na si conscience te mu xam ni ndaw ñii ku ko jàppale si ndaw ñi amul sa fay bañ na bu moom si xalaat ni ndaw ñii ñoo man yore réew te Sénégal richesse bi mu am te mu ëpp doole mooy nit te nit nag dañ koy defar ba mu man jariñ boppam man jariñ réewam man jariñ famille man jariñ mbokk ay mbokkam si tànk yooyu la sëñ Xaadim nekk président mi ngay sant di la gërëm dina ñëw fii Baxdaad wax ba ñépp dégg ka ndax yow loolu mooy sa mérite réew mi yépp yoreel nañ la njukkal yoreel nañ la jëf rawatul nga fekk ay ñii dañu réer ñii dañu réeroon nga gingi leen teg leen ci yoon wi nga xam ni moo leen di jariñ ba nu teqli ko bépp ñaawteef ñii danoo soog a jub àddina war leen man fëkk nga jël leen def ci ñoom ubbi seen dënn bi def si gëm sëriñ tubaa te soo xasee ba gëm sëriñ tubaa dara mënatul a fëkk kon wax dëgg yàlla président amul sa fay yëg na sa taxawaay si réew mi wax na la ko nga dégg ma seede ko te incha allah dana ñëw fii waxal ko boppam su neex yàlla wax na la bés bi mu fee ñëw bés boobu daa ko yëgal mbokk yëpp te moom dana ñëw ñëpp dégg ko kon sëriñ bi président mi ngi lay sant si turam laay waxee si turu gouvernement Sénégal yëpp laay waxe te moom su la santee mi ngi lay sant si turu président de la république mi lay sant aussi si li ngeen bokk Cheikh Ahmad Bamba xam na ni waa kër sëriñ tubaay yi ñépp la joxoon cër ba fi ay doomu sëriñ tubaa amee ñoo ñoo la jëkk jox cër fii maa ngi koy fàttaliku ni màggal gi gàmm gi ma jëkk ñëw si yow si ku tedd ka Cheikh Saalix moom laa jóge mu tegtal ma ma ñëw fii ma ne ko damay gàmmu ji danaa fa seene naa jaar cees ak Tiwaawan min ma soo demee Thiès kon na nga àgg sa sëñ Xaadim loo loolu laa jëkk ñëw fekk la booba yaa ngi sa parcelle Assainies xam naa sa digganteek bu baax ak Cheikh Mouhamadou Mourtada xam naa sa diggante bu baax ak ñi nga xam ne ñoo fi nekkal Serigne Touba kon loolu dara waralul sa liggéey bu sell sa taxawaay bu dëggu ak sa nekkin wu rafet si yoon yi kon ñu mu ngi lay sant bu baax si loolu man nag suma digganteeg yow moom lay terminer lu ma xàcc rek bàyyi naa lu ko raw man damay seet si yow rekk di nit di gis Sëriñ Tuubaa man ak président dafa am lu nu dal ñun dañu jël suñu bopp jox ko Sëriñ tubaa doyloo ko yam si sëkk nag ñaar yi du nu dal léegi la ma ko sëñ bi di wax bind na si xasaayit du du metti ba nu saalit ndax ku tedd ki dana taxaw sunu kanam lépp yomb du neex ba nu fàtte ni moo neexal lépp moo tax sunu làmmiñ jërëjëf sëñ Touba du si géej mukk yow nag man ba ma la xamee ba tey ba nga ma jëkkee jox loxo rekk ma xol la si biir bët laa xam ni yow am na lu nekk si yow bari na ay mbir yo xamni su ne bëri jug damay jël sama téléphone bi ni la sëriñ bi mbir jug na nangam nga wax may na ma nangam lay demee nga juboo seeg sa borom sëriñ Touba dana dana dem ba mu neex la nga ni kar sa téléphone fekk ma ci biir soxla woma ni ma dama la soxla suma ma ngeen ma mbir sàngam a ngay ñëw waaye nangam ak nangam nga juboo seeg sa borom sëriñ Touba mbir ba mel non man de wax dëgg yàlla doy nga ma ba mu mat sëkk doy nga ma si fànn yépp parce que man dafa am loo xam ni moom lay jàppe nii damay wax ni àddina bi suñ doon wax li fi gën cher si àddina soriñ Touba laa koy jàppe su fekkee ni jamaa la sëriñ Touba jamaa laa koy jàppe ma ni kon waa kër sëñ Tuubaa yi war na nañu rey rey buy nuru jamaa yow nag yamuloo si rey rey buy nuru jamaa jamaa piir nga lu sëñ Tuubaa bëgg rek nga bëgg li may wax li may wax du li wax du toogaay boo toog ma koy wax du mbooloo mi nekk fi ma koy wax lu ma gëm la jël sëriñ tubaa def ko seede si man lu ma gëm la jël sëriñ tubaa def ko seede si man yaa ngi ko defal sa maam gu tedd ga sa maam Cheikh Mat Bamba di ka màggalal koo xam ni mooy léppam di rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam si bés barke bés bi nga koy defal te kat yow danga nga seet li Sëriñ Tuubaa gën a bëgg mooy rasulullahi bañ na bu tuddee boppam xaadimu rasul nga ni si loolu laa koy màggale kon yow xam nga li sëriñ tubaab bëgg te sëriñ tubaa kat du kenn ku man làmb te doo si daj lu du rasulullahi moom moo ko waxal boppam lu waay di wér di rek yoon bu taxaw sëriñ tubaa taxaw na si yoon wow ba am màndarga boroom yoon ba waaye nag dafa àgg foo xam ne gisatul woon kenn ku dul rasulullahi bëtam yi kenn mënu ko woon fees ku dul rasulullahi sun borom boole kar dala ni laaw ala muhammad wa hadin muhammad al samad mu yoon wu gàtt sun borom moko tektal tegtal boole rasulullah bes bobu dara manatul fess lu dul rasulullahi kon bés bii soo ko jëlee di ko jël ko yëkëti ko bu ñëpp gis ko ci barké bes bi la bëgg nak man sukkandiku sama tank ñëpp dima dégg wax nga ni da ngeen ma japp ngir sëñ khadim waye dafa am sukuma jël loxom tek ci loxo sëñ khadim te gëm naa ni ni ma jëlee loxo président Abdoulaye teg ci loxo sëñ Xaadim loolu dana ko rawal ba fow te lu nu am daan ko bëgg jërëjëf sëñ Touba.